ca tey nag damaa kontaan ah, ndax sama kat laa taxawal di Fatou Sarr ndaanaan kulli fadrin mënatoo wax fii danse ci Sénégal te waxoo Fatou ñoo ngi koy gis ci pas mal de clip pas mal de spectacle mu koy fecc di ko toj Fatou Sarr maa lay nuyu bàyyi la nga nuyoog si ay internet. sama jëwriñ siyaar naa la salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum internet. maa ngi tey boo gisee nga ñëw Sénégal bëgg la nit ñi bëgg la. ban sentiment ngay am. waaw dama am contentement bu baax ndax euh, olof Ndiaye nee na loué ay chaise yu yomb na trop waaye am ay nit yàlla cee toogal moo jafe kon euh, bu fekkee la may def. dafa neex sénégalais yi du ma def leelu lu dul continuer ci stade boobu nu ma nekk noonu bañ a teggi sama tànk baak Serigne Touba mais du lu ma leen jox du lu ma leen may ñoom ñoo ma xoolal seen bopp ñu bëggal ma seen bopp kon dama ciy sant yàlla. tey ji façon style de danse bu nekk moom daf koy wala lu nekk ci yow la rek. déedéet jànguma ko moom. dafa nekk ci yow nii naturellement. c'est le sens sama yaay fecckat la nday jaw mu daan ànd ak nday Guèye Oumou Sow ñoom Penda Kayta ñoom ay Dada ñoom ñëpp kon man bu ma feccee damaa war a fecc mais jusqu'à présent nag jaaruma dugguma ci benn salle naan maa ngi jàng maa ngi def nangam jànguma ko c'est naturel c'est dans moi. sa diggante ak Bass waaw kooku moom sama papa sama lépp la sama séddoo la bu may wax ci moom fii la ñuy fanaan bàkki Serigne Saliou àdduna bi yëpp xam na ne dama koo bëgg ba dama koo rus mënu ma wax yenn yi sax ci kanamam mënu ma ko xool ci biir bët kooku moom nañ ko tegee nee rek dama koy bàyyi ak yàlla moom mi am fay mu fayal ma xool am na solo également nga ñëw jiboo ak ñi nga xam ne ñoo di danseur yëpp dañ lay gis ak Kitana Fadel Ndeye Ndiaye Banaya danseur yëpp da nga ñëw jiboo ak ñoom tellement que dañuy gis ni Fatou Sarr dafa ouverte sa diggante ak danseurs yi également nga ñëw ñoom ñu accepté nii accepté la li nga mën yow tamit nga nangu leen li nga mën ngeen sekk jàmm yéen ñëpp mu rafet tamit. waaw aar boo ci nekkee da ngay nangu ak ñuy nangulante man aw ma man ku may xaar ci gaalu xaj moom di nga may yéex a gis parce que maax fecckat yi ak waykat yi ñëpp ci bokk yam aw ma ca kenn xaar ma yaasin man fuma ma waay fekk damay gaf dama ree bëgguma sax histoire parce que sama fekk maax ñoom ñëpp ci jàmm la ñuy nekk amul leen loo xamante dinañ ko seq loo xamante day dépassante wax ci cadre aar ci cadre fecc bu ñu paree ku ci nekk nga dem loolu laa séq ñëpp te loolu laa bëgg ñaan yàlla mu wéy sama diggante ak fecckat yeex waykat yi la moo tax Fatou Sarr duñ ko gis tey ci site internet yi wala duñ ko gis ci télé yi loo ko lu dul da nga koy gis lu dul spectacle wala euh, tey clip boo xam ne mi ngi koy danse mais doo ko gis ci site internet doo ko gis ci télévision yi wala rajo yi déedéet lambar lambar bi poste da ngaa dem télé daal non non da ngay prouver jëf nit ñi gis man sagam maa ngi def nit ñi di gis di apprécier après li ci des ci loxo yàlla lañ ko teg bu nee tey chaque jour dañuy dem fee dañuy dem foofu mais bu lu jotul rek jotul xëy na daa jotagul mais bu jotee rek nañ ko encaisser. dama koy ruube nag ca caméra kese ba la parce que daw lan la. moo tax dama la tax da dem. ayca moom nag nee naa la dafa bokk ci marraine yi ah di Binta sañse ba rafet tàq ba yàqu moom dama koy fekk ci entrée bi laataa muy dugg waxtaan ak moom Binta maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog sumay internet. waaye maa ngi nuyu ñëpp ku ne sa tur sa sant maa ngi ziare ñëpp daal waaw kay. mais Binta cofoo bis bi de li nga sañse lan la. moo ma jaaxal dama ko oyofal nii rek. tey lan ban sentiment ngay am boo gisee tey ñu yëg la dee la li nga xam ne moo di événement bi nga ànd ak say xarit ñëw également. waa dëgg la dama kontaan parce que ba ma tëllee gis nit ñi sax mooy loolu dama kontaan macha allah tey daal Bastour daal mooy loolu ñu ànd ak Bastour rek. zële xaar la ci biir nga zële ah zonzé. ok ñu xaar ba ci biir ñu zonzé. kon laa bëgg nga présenté ma ko ma teral ko. ki la ma waa ki ma maquillé na maa ngi koy nuyu maa ngi koy bisu sati biiti moo ma maquillé maa ngi koy naan merci beaucoup. kontaan Binta léegi léegi ci biir. ok bye bye.